Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, hein. merci Louis des likes, merci Louis des abonnés, merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations, inbox sénégalais, fait pour les Montenegro, 14 régions du Sénégal, Roukhoukha, Gorgora, Ninglen, Djadjofel, nous sommes également au l'hôpital et sécurité de février, nous sommes en train de bop ni rek jam ñi nek ci kasso yi ngeen xamni aussi erreur judiciaire gagné nañu deful bo leen fa yobbu suñu borom gënal leen fa delwaat leen seen njabot ñi delwaat dul na suñu borom xal leen aljana fi daw ci gaay té yéxé ñu on avance ensemble dans la magie des sportiviers de Baba Show l'actu actualité en contenu gars actualité bi nag match ñu Sénégal Guinée def débrief bi hein également waxtané li nga xam nag li ci di comme résultat le Sénégal donc qualifié en huitième de finale match bo xam gay premier mi-temps bi nekk na premier mi-temps bo xamné ndam demul ndam dikkul ah donc zéro but partout le wona ah. donc diggante Sénégal ak Guinée Guinée nak ñëw Imposer. li nga xam ne donc football bo xamné football bu jaxaso la ah. football bu mbedd la ñom indi ay xéx ak ay xulol lañ doon indi parce que xamnañ né bu dee ci terrain bi rek Sénégal bu footballé full ak fayda rek eh, Guinée eh, mënu ko yëngël ah. mais Aliou Cissé nak li nga xam def na changement avec un euh, changement gagnant Abdoulaye Seck bi nga xamné ne joué na aussi Nampalis Mendy Nampalis Mendy nag kaam dinañ ci ñëw ci kanam sinon à part changement yooyu nak nag Cissé même euh, équipe bi le daal di même dynamique bi nek également ci même euh, taxaway bi amone on a vu nak Sadio Mané tay raté na fi ben occasion bo xam occasion bu ngand ngand ngand la

xam ne nag naan naan jaabare lekk jaabare mo len moo leen gënaloon quoi donc kii nak di pamatar Matar Tar Boy Thiès football sincèrement le volume de jeu de pamatar sar exceptionnel phénoménal stratosphérique pamatar sar mais maintenant nak li des moy pamatar nga gën précis yenn passe parfois euh, fougue de jeunesse mais quand même il a fait un match correct Nampalys Mendy nag comme je dis mon positionnement mon ma xaw a parce que Nampalys Mendy ñëpp dañoo xaar mu jouer devant euh, devant la défense hein, donc mais nag dañ ko jël yéegal ko teg Pape Gueye ci et ben je pense que c'était le contraire qui devait se faire en premier mi-temps parce que Pape a am bagage technique pour euh, li donc jiite le jeu de l'équipe nationale du Sénégal mais aussi li ñu de a wax rek Sénégal premier mi-temps bi côté gauche bois Guinée bi à espace diggante arrière latéral gauche bi ak axe gauche gauche bi mais profité wuñ ci woon dans la profondeur mais aussi li nga xam ne nag mën nañ ko wax mooy Pape Alassane Gueye euh, malheureusement dafa génn on espère que ne du blessure bu graaw parce que Aliou Cissé tamit li mu wax consigne leer na ku ci yëg benn gêne bu ndaw ndaw ndaw maanaam lu ku yëg benn gaañu gaañu bu ndaw ndaw bul force génnal parce que dañu bëgg garder ñëpp pour ñu mëna jouer match bi ñëw donc Pape Alassane Gueye on espère que dara graw ci hein Pape Alassane neex de mën football Gueye le gaucher magique de l'équipe nationale du Sénégal bo xamné nak mom dañ koy soxla lool lool ci match yi di ñëw surtout li nga xam moy équilibre bi mu indi au niveau du milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal je pense que l'équilibre de Pape Alassane Gueye bi mu andi moko mais aussi Abdoulaye Seck waxna ko Abdoulaye Seck un joueur bo xamné bu duggé day def différence il est bon de la tête man daf may Fatali, ndeysaan comme numéro 4 bi Kara respect à Kara le grand Kara ki nga xamné gay amul lu mu defal Sénégal Sénégal bii ñu doon dugal bopp yëpp moo fi nekkoon aujourd'hui on a un nouveau spécialiste qui s'appelle Abdoulaye Seck ma bàyyi leen ngeen apprécier bii bi gars yi. C'est bien frappé après bi bi nag gis ngeen ah donc euh, ki nga xam ne mooy donc euh, Kaba Diawara moom yoo xam dafa yàqamte ak daje Sénégal il a fait énormément de changements hein, par rapport ak équipe am aussi parce que euh, jamono jooju noonu match bi instant bi ñu toll qui kii di Gambie dafa égaliser contre Cameroun ah, donc ce qui veut dire que ne Cameroun aussi ah moom pare woon na ci pare na ci course mais avant moo dugal aussi comme je dis dafa nekkoon ci loo xam ne ay balotage la même si la Guinée elle était mathématiquement qualifiée ce qui est sûr mooy que ne Sénégal tey nu ñu bëggoon mooy am première place bi et première place bi également gars yi 2-0 patalbi. bi ah Guinée tey war nañ leen mu ngoog di nga lekk jaabare ah Baba nee na mu ko mu ah Baba nee na xamal la ne mu ah donc gars yi tey mu ngoog ah kii di Iliman illuminé éliminé Doudou Padjalis Iliman Star Boy Ndiaye génn bëggul moom yàpp lay dund yaa marqué le deuxième but décisif ah le numéro 13 sénégalais bi nga xam nag dugam mu ngoog waxoon naa ko bu duggee dina indi différence bi ñëw na def différence bi avec une passe lumineuse ni ko gars yi waxee bu ki nga xam Sadio Mané Cheikh Sadio Mané Sadio Marie Mané ah bi nga xam aussi il a participé à cette victoire bi nga xam ne nag tey am nañ ko comme je dis Sadio Mané du rek ay dugal but mais aussi impact physique bi indi impact technique bi indi aussi da ci am ngeen xool but Iliman Ndiaye bi également donc le match exceptionnel phénoménal hein, stratosphérique monstrueux hein, ki Ismaël def match offensivement défensivement il était partout Crépin également def match présence de donc Sénégal tay donne, Guinée yi tax na ñu xam donc ñom lacc rek hein, et tout on kon nag kalaan naa to gars yi wéy leen di like wéy leen di abonné gars yi wax na fa ensemble nan ngeen bi jaa